waaw maa ngi leen di nuyu kenn ku si nekk si turam ak santam di njëkk nuyu madame sek Ndeye Kumba euh, teg si Moussa sek yow duma la njëkkee bàyyil mu jël la di nuyu soxna mare mi ma àndal ak euh, sunu cameraman alsan di am mbégte lool nag tey di ñëw si école bi nak naka la tila sax Blente al ah? Bleng Almahdi ah? voilà. Euh, di kontaan lool am mbégte si dalal gi ngeen ñu dalal ndax Ndeye Comba nii la ma samel moom euh, daanaka dañu dëkk Laayeen mais ku ko am xam ne nit ku am yar la nit ku ami teggin ku am respect ku respecté doomu aadama la donc euh, wax dëgg yàlla bi mu ubbee fii ba léegi ñu def benn partenariat ñuy liggéey ensemble masuñu masuñu teg lu ñu mënul masuñu proposé l'impossible toujours lépp lu muy wax rek day yanu maana lépp lu muy def it day yanu maanaa euh, si biir loolu ñun ñu gis ne école bi suñu école la man dama jàpp ne man siyaas école bi man si ñaka moom laa bokk ndax du def dara léeg-léeg te yëkkatiwul téléphone am waxtaan seeg man frère nangam frère nangam bu ko demee ne ah xanaa nangam ak te loolu lu yàgg la ala rawatina yow mi di kilifaam diit sama kilifa ndax man naa wax ne bokk nga si ñi kon daanaka sotti seeg def si la lépp benn la rek bu ñu ñëwee si école bi nag euh, Ndey Kumba suñu événement bi muy dîner de gala bi ñu organiser le 28 février damay jàpp ne lu jaadu la ndax bi ma sama téléphone rek oo ko wax ka daf ma ne ah frère man day lii rëy si man wax deug yalla manaka ne ko yaaka moom ndax bu ñu amoon lu ëpp dañ ci defal ndax taxawayam si yof xam nga limi def education, mais ki danaka dafa melni, si ñi defar dekk bi ëlëk ifi la bokk ndax xalé yi fi yi fi yi fi yi fi jànge ñom ñop bo leggé ministre da ciy génn maire da ciy génn député da ciy génn président da ciy génn laneen ak da ciy génn kon donc fi ay intellectuel rek la école bi di former ñu xam ci dara ndax ñi fi jaar ñëpp gis nañ leen fa ñu teer ji macha allah ñi ngi sant yàlla di ñaan yàlla yàlla yokk ka kon nag école bi di école ñëpp beneen bi mooy muy école bu social ñu xam ci dara ndax ay cas yu ne jaar na fi te buñ jëlee suñu téléphone intervenir rek nga gis mu daal ne yow suñu frère nga kooku bàyyi ko mu ñëw xàmmee ne nit ku am ak ku amul te pourtant bu doon liggéeyam rek lay topp kon xëj na du defee noonu waaye nag yoof damay wax ne képp ku fi ibbi dara lu mu mën a doon il faut nga dugal social ndax ñun dañu judd social ñun waa yoof yoof xamul lu dul social dimbalante la xam joxante loxo nit ku nekk si suuf yow boo yéegee si kaw da nga koy la main mu mu xëcca la nga jóg ñun noonu la xam noonu lañ yàgg di demee moo tax nday kumba buy def loolu ñu ànd ak moom si liggéey boobu ñun dañu si am mbégte am si kontaan ñi ngi kay sante di ko gërëm bu baaxa baaxa baax a si nangul gëm ñu nangul euh, jërëjëf sias li nga wax juumuloo ndax école bi sa école la sa école la waaye it école yoof la boo gisee ma ne école yoof la dañ ko ubbi pour xale yoof yi ñëw di fi sàkku si xam-xam benn ñaar pour it jeune yoof yi nga xam ne ñu si dara mën fay ñëw créer ñu créer emploi ñu mën fay ñëw di fi gagner dara euh, looloo waral euh, euh, dañuy recruter ay jeunes yoo xam ne musuñu jàngale mais qui ont un diplôme académique ñu ñëw def seen formation ba am seen diplôme professionnel bu ñuy dem feneen sax ñu dem donc defuñu ko pour ne dañ ci gagner particulièrement lu dara mais dañ ko def pour la promotion du village de Yoff donc kon mun nañu wax ne école bi école Yoff gépp la waaye Yoff yëpp ku si sa wërsëg ne soo ñëwee di nga ci di nga ci di nga ci gis sa bopp euh, parrainage bi nag vraiment ñu ngi si ñu ngi koy rafetlu bu ñu koy rafetloo ba pare tamit dellu di di ci kontaan lool parce que lu mel nii yàgg nañ fi bon soo ko defee defaloo ñu ko ñun rek da nga ko def pour village bi. te ñun lépp loo xam ne mi ngi si def promotion yoof lépp loo xam ne dañuy day yëngu pour lu jëmale village bi kanam ñun ñoo ngi si kontaan nañ ci nous prenons acte di ñaan yàlla yóbbu ñu si bés beeg jàmm bu sobee yàlla dinañ fa taxaw niñ fa war a taxawee allah rabbi loolu amoon ci lu may wax di la gërëm di la ñaanal yàlla yóbbu la fu kawe sa njort yàgg ñi nga àndal di liggéey jubale leen yombal liggey bi yombal yan bi merci beaucoup lola laa amoon si wax. voilà merci beaucoup monsieur sec merci beaucoup yof Mbolo euh dama len di euh, remercier wat encore une fois parce que vraiment li honneur le bu reuy pour euh, le groupe scolaire bilingue Al Mahdi euh, vraiment comme ni ko waxe rek école bi sa école SIAS certes monsieur sec bu waxe ba paré ëmb na ñëpp. mais dafa dafa rafet parce que dama contane du fait que euh, vraiment honneur bi ngeen jox ko groupe scolaire bilingue euh di ñaan le 28 incha yalla yàlla yóbbu ñu si jàmm euh, yàlla matale lépp si barki baylay mu tedd mi mi ñu yaakaar war may mam Seydi donc euh, comme yof ni ngeen ko gisee rek groupe scolaire bilingue Almadies mu ngi fi vraiment yof mbolo mom suñu partenaire la bu yàgg du du tay rek moo ñu du tey rek moo ñu boole yàgg na depuis euh, ma nekk si euh, vole éducatif bi di yëngatu euh, je pense que ni dama doon liggéey ak SIAS ba tey jii nii te vraiment gis nañ ne ñu ngi évoluer si côté yëpp muy moom muy man dañoo bokk lu ñu xamante ne mooy pas-pas pas-pas pas-pas bi mooy lan xool li nga xamante ne moo nekk yoof muy lu baax ñu wane ko ñu contribuer si te je pense que ni loolu ñun ñoo ko bokk

Donc, certes, il y a des jeunes qui ont un diplôme, euh, mais ils ont un diplôme qui est formé. La majeure partie maintenant, on a plus de 20 et quelques, voire les 30 qui ont un c'est le responsable pédagogique, c'est le homme qui a un CAP, qui a un CEAP. Alors, les élèves qui ont eu des promotions, qui ont et un en e aussi, ils ont réussi 100%. Ils ont passé 100%. Ils ont passé aussi un échec ainsi de suite ainsi de suite donc cela veut dire que aussi groupe scolaire blingue Al Mahdi nous ngi contribuer à éducation d'une manière bu nga maintenir au niveau national et au niveau de l'IFDS Al Mahdi bi nga xamante le fa lañ respecté nañ fa groupe scolaire blingue Al Mahdi voilà donc il y a de ces choses que nga xamante vraiment nous voulons leen remercier si confiance bi en am si ñun te incha allah yàlla du ko encore une fois Nous voulons leen remercier voilà voilà donc euh, Sinon aussi au niveau national je me rappelle que tout le temps il y a des stagiaires qui sont xam te Belgique lundi sax bu soobee euh, reprendre stage les années passées aussi c'était pareil donc cela veut dire que nous, national, au niveau national Sénégal les stagiaires belges sax ñu ngi Belgique, pour réussir seen examen buñ paré duñu wax ne ah maintenant yoré na classe donc lu semaine de promotion bi passé je pense que fête mardi gras bi ñu nous ñun euh, remettre nañ un ay ay diplôme diplôme euh, de fin stage te tégon nañ ko yof mbolo di a aussi le le 25 décembre le 25 euh, février excusez-moi pour suñu mardi gras bi di donc le 28 tamit ñu doog defaruwaat rek jakarlo ji ak euh, dîner de gala bi bi nga xamantene vraiment inshallah na ci am taxaway bu mat bu sobe yalla ma ngi remercier waa Yoff Mbolo di remercier wayof Yoff di ko ci euh, sangu sang bi euh, Chérif Abdoulaye Thiaw Laye ak ahlu beyti yeb di remercier aussi suñu frère Diouf sar le ministre donc di remercier ñep dal vraiment content nañ ci taxaway bi ngeen am de nos encouragements je vous redonne la parole euh, mon frère